li ñuy jooy rek mooy que temps bi mënuñu ko may parce que dañ koo fekk mu am fu mu bëgg a dem wax dëgg yàlla ci disponibilité mu may ñu ko ñu am nag mbégte waxtaan ak moom ci lu yaatoo yaatu mais nag dañuy waxtaan ak moom rek ba fu ñu temps bi xoj rek bu ko defee ñu bàyyi ko mu doxee li nga xamante bi ni mooy ay yitteem parce que dañoo ñamal ci temps bi interview bi moom ñun ñoo taar joxal nañu fa weer suba ca 10 heures <laughs> ñu koy bëggee bu baax a baax di ko siyaar di nuyu aussi tamit lañang taalibe borom daaru bi suma maa ngi koy siyaar bu baax a baax di ko jox wàccuwaayam ñu fa yéene waxtaan ak moom ci làmb dañ koy nuyu fas yéene koo nuyu bàyyi ko mu nuyoog mbokk internet yi bu ko defee ñu dugg si waxtaan ñu ngi lay siyaar bu baax a baax taay si nga di la waaw jàmbaar ñu lay fay ñuy sant yàlla nag bu baax a baax di julli ci yonte bi tedd bi sallallahu alayhi wa sallam di gërëm suñuy waajur di ñaane Sénégalais yëpp fépp Sénégalais nekk rek ñu ngi lay ñaane yàlla may la gudd fan ak wér yàlla may la sutura yàlla may la koom bu baree baree bare bëri yàlla may la gudd fan ak wér. macha allah am na solo dañuy nuyu waa réew mi ak waa bitim réew ku ci mel ni Abdou Tall bu xarañ loo ñu ngi koy siyaar bu baax a baax saa Touba suma xarit le grand marabout maa ngi koy béggee bu baax a baax Abdou borom Ramdan Couture Aliou maa ngi koy siyaare bu baax a baax ëmma yaakaar naa fi may njëkkee euh, question yi mooy que da nga soutenir. Ama Balde ak mbaru Pikine yëpp di nuyu tamit aussi euh, kilifa yi nga xam ne tamit aussi muy deux cent deux cent pour cent bi. Pikine bi maa ngi nuyu kilifa yi ko ci njëkkee ko ci ku ci mel ni Abdou Bakhoum ku ci mel ni Dégol ko ci mel ni Souleymane Balde Père Pala Diop ba ci Mansour Diop mu fi nekkul Pape Cissé tamit aussi ñu ngi koy ñu ngi koy ñu nuyu bu baax mbay Diallo tamit aussi vraiment gis nañ ko ci ñu koy nuyu baaba Diallo voilà xam nga Pikine waa yëpp ak tamit Père Bourkhane Pape Sarr tamit aussi. vraiment ñu ngi leen di ñu ngi leen di masawu tamit aussi di leen di leen di leen gën a di leen gën a encouragé. Mm-hmm. tamit parce que gis nañ ni mm-hmm. taxaw nañ ñu ni ñu war a taxawoo. Mm-hmm. waa sama sama tamit vraiment gis nañ bis bi fu mu leen tolloon. Ama Balde. waaw nit bu am jom la. nit ku bëgg combat bi la. nit ku nit ku nit ku fonk combat bi la. comprendre nga. Pikine tamit aussi gis nga ni ñu génnee jàppale ko tamit ci combat mais daal ñu ngi masawu. képp kuy pikin waa képp kuy supporter képp kuy fans rek mhm. ñu ngi lay masawu ci combat bi ñuy bi bi ñu passé di la ci di la ci baalu tamit aussi mhm. ok mais beneen beneen soose bi mooy que mhm. bor la incha allah dinañ liggéeyaat préparer ko xool li manqué ñu renforcer ko ñëw ci yéen prochaine combat mais nag waa pikin bëgg nañ la beneen bi mooy waa pikin sentir nañ la te gëm nañu seen doom ga du dëgg critique yi bu ko bañ parce que c'est normal yéena la rek lu waaye munti wax rek nangu ko te déglu ko nga xamal ni yaa ngi ci xolu Pikine waay yi ñu ngi sa ginnaaw te Pikine waay duñ mus a découragé tey a ñu ngi sa ginnaaw tey lañ gën a gëm defaruwaat la làmb la sport la équipe bi mag yi dañuy perte finale boxeur yi mag yi dañuy fet dañuy perte champion du monde xam nga merci man maa ngi ni roi des arènes bi perte naa ko xam nga loolu la sport la tey lañ la gën a jàpp. te tey ñu ngi sa ginnaaw tey lañ la gën a mën a wóol te tey lañ la gën a renforcer incha allah. Mm-hmm. macha allah bu ma ñëwee yow si biir komba bi yaakaar naa am na question boo xam ne. Ama Baldé toog ngeen bokkandoo lekk bokkandoo lépp parce que soq jëli nañ ko léegi mu ne li ko gën a marke loolu la ngeen lekkandoo naanandoo bokk sax kontaagandoo nan ngeen def ba loolu mën a am. non du leen parce que tey Eumeu musul manque respect kenn ci ay rakam. Mm-hmm. musul leen musul ci ji kenn lu ñaaw. loolu rek laa si gën su conscience tranquille xëy na boo amee tamit sama xel demu ci. Mhm. parce que nit moom des fois mun nga jumta doo ko xam. ñoom tamit aussi même chose. Mhm. musuma ci taxaw kenn mu manqué ma respect wala mu wax mu loo mu warut wax. Mhm. du dëgg kon su may rakk lañ kon mu koy expliquer rek musuñu am benn problème xëy na nag mbiru sport wala yu demee noonu jàppale bàyyi li xëy na mun ne ay détails mais ñu suñu biir kenn musu ci amel kenn wax ci nit lu ñaaw wala nga dégg ni di wala nangam bi mm. dëgg kon ñun su may rakk lañ mën a doon kon lu may wax rek man du mu mujjee puso bu muy réer lu dëgg man Pikine laa am lu dëgg tey li ma doon tey Pikine la mm. donc nag indi naa la raay bu nekk parce que tey boo xoolee roi des arènes Sénégal la yem. mais champion d' Afrique yemul Sénégal. te mhm. champion d' moo gën a rëy. du dëgg mhm. kon tamit aussi mooy lu mu lax rek. Mhm. ma yegg ci làmb. su may rak damay yàlla ñu paase fa. yéene boobu ak boobu laa am. parce que dama am jaar jaar. kon tamit aussi te lamb métti na métti boo xam ne képp ku ci nekk. waxuma la ñi nekk sama écrit waxuma la ñi nekk waa Pikine. mais képp ku nekk ci làmb rek ñaanal ko yàlla suñu borom mu tekki ci. parce que làmb moo nekk sport boo xam dafa fiir. te loo ko boolee mu bàyyi la ak moom. te moment bi ngay nekk ci làmb def ci sa life yëpp jàng mi ci dafay wees lépp dafay wees. kon boo ko perte rek mm. lépp dalay raw. Mm. kon nag sport làmb dafa nekk loo xam ne ba ci yaawu jaal. Mm. damay ñaan yàlla mu teg ci parce que làmb dafa métti. voilà rak sàkkantumaa nag ñu nekk sumay rak. nekk sumay ginnaaw ko ci mel ni Tyson de sa bogal xam nga. sooku xam nga jatli su ma leen damay juum champion yi fi nekk yëpp sumay rakk lañ man nag maay tëdd rek bàyyi la ñu joggi ma jaar suma gannaaw lépp mais damay boot sumay rakk lañ donc nag loolu lépp nag yàlla def na amul sumay rakk lañ jox nañ ma cër teg nañ ma suma place xam nga noonu la mun demee quoi Pikine lu ko nangu ndam si yàlla nangu di waxee rek boo laalee kii laal kële ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi toujours loolu nekkul nag lu difficile ah. Mm. nekkul difficile non non nekkul difficile. nag man ngeen a sot de keroog stade man damaa mujj ne làmb moom xam naa ne sot moom kenn dàqu leen ko ci réew mi. waaw c'est vrai nag waaw non ji moom vraiment am na làmb yu mbëri làmb yu mag sax yu mu yu mu gën a neex. Mm. waaw noonu la Pikine ñoom noonu. Mm. Pikine bu ñu booloo xajuñu fenn. Mm-hmm. waaw loolu moom yàlla suñu borom def na ko parce que mm-hmm. Pikine 16 communes la la woon mm-hmm. léegi lañ ko wàññi mu nekk 12 communes. mais Pikine dafa yaatu. xam nga banlieue bi dafa dafa dafa yaatu macha allah xam nga. parce que banlieue bi tamit ñoom dañuy dem ba jeex ñoom jàmbaar lañ bëgg. tout temps la bëgg jàmbaar. jàmbaar bëgg jàmbaar. fi ma jeexale yow <laughs> ci journée boobu noonu avenir u Franc nan nga ko gisee parce que yàgg nga koo wax ci biir làmb Franc. waaw Franc champion la mi ngi ci yoon bi fu mu teg tànkam noonu la parce que ba pat na mm-hmm. te du moom kase am na champion yu bëri yu fa nekk. Mm-hmm. wóbbali nañ ko bàyyi xel. Mm-hmm. Euh, nu mu tuddati du Sané. champion la. xam nga Mour fay ordinateur ak keneen ki nu mu tuddati bandi 40 ans ak nu di tuddati. <laughs> <laughs> nga. Euh, ak Serigne Ndiaye Serigne Ndiaye tamit na ko gars yi bàyyi xel. yow bu ma la déggee daa mel ni ndoxtu bëree yi nekk ci mbëree mbapat yi danga bëgg ne ñooy mujjee ji làmb ji. waaw làmb dañ koy tarbiwu loo doo doon sëriñam waaw loolu la quoi laaj sax moo demee noonu parce que àdduna lépp loo gis faayet la lépp loo gis ñafe la lépp loo gis njàmbaar ci feeñ waaw xam nga bi sax pour mu jàpp njàmbaar yi tax mu jàpp gaynde pour mu rëbb jàpp njàmbaar la kon àdduna lépp lu ci nekk rek njàmbaar yi ci feeñ njàmbaar moo moo yàlla xam ma ak njàmbaar parce que loolu amul fulaak fayda ak njàmbaar te rek du dem waaw loolu quoi. macha allah yaakaar naa ne am na solo fi may jeexalee yow nag dama lay jox date yoo xamante bi nii daf ma marqué ci làmb 2 janvier 2005 8 juin wala 8 waaw 8 janvier wala 8 juin 2009 andi laa la 6 mars 2011 andi laa la 5 avril 2015 andi laa la 28 juillet 2018 date yi ma wax yi yëpp ban moo la ci gën a marqué. premier 2 janvier 2005 lan moo xewoon. ah da non gisee du ma ak Balla Gaye. 2 janvier na waaye c'est sama combat ak Souley nekk na combat bu doy waar vraiment combat boo xam ne Souley Diop uppee na mu poids bu bëree bëree bëree bëree bëree bëree doon combat nag bu combat choc bu métti woon vraiment yàlla suñu borom may ma ci ndam waaw loolu ndam ma neex la. waaw. Mhm. loo xamante ne dama ko remarqué ci yow. te chaque jour boo koy ñëw choc lay doon. muy 8 janvier 2009 sa diggante ak Balla Gaye numéro 2 Eumeu Sène dafa raaroon ci làmb kenn gisatu ko bu dul bi mu ñëwee ci Xaadim Ndiaye combat ba yaakaar naa ne nga am ci blessure perte combat boobu noonu mais nga dellu si ci Balla Gaye numéro 2 ak fa nga fekkoon Balla Gaye numéro 2 bu ma jógee ci loolu aussi tamit dama lay indilaat beneen date boo xam ne mooy 6 mars 2011 maanaam date yi day mel ni booy ñëw ci bàkk bi laay njëkke ak yow maanaam bàkk bi lan lay wundu 8 janvier 2009 bàkk bi lan la wundu waaw bàkk bi mooy njogee ne njogee ku ne xam ne ni mooy gaynde mm-hmm. waaw loolu la rek bàkk bi bàkk man suma suma tëgg dafay dafay su ma feebaroon sax damay wér. Mm-hmm. waaw man bàkk noonu la may def. yow mën a tëgg. <laughs> waaw non damay tëgg man maak suma Mor Ngom maa ngi nuyu bu baax le passage maa ngi koy nuyu bu baax suma suma doomu baay bi xam nga doon nit ku baax tamit aussi xam nga. man su ma su ma diggante ki may tëggal déjà benn ay mbokk lañ ñaar dañoo déggoo. Mm-hmm. su mu ko xoolee sax mu day xam li ngay wax. waaw te moom lépp lu mu tëgg tamit aussi du nekk hasard ci man. Mm-hmm. voilà day fekk lu bëgg. Mm-hmm. lan moo tax booy bëreeg Balla Gaye muy metti parce que damay gis ne chaque jour booy bëreeg moom ci defet ngay jóge bi ngay bëreeg moom 2009 da ngaa jóge ci Xaadim Ndiaye bi ngay bëreeg moom 5 avril 2015 da nga jógee bu ma juumul sa komba ak euh, Modou lan moo tax booy bëree moom day metti te aussi tamit ci bàkk yi boo ñëwee rek bu ñu bàkkoo dañuy gis beneen xarkan mu ëmma seen bu bokkut ak bin daa xam. waaw c'est normal xam nga làmb moom Kolmara rek làmb bopp neen defu ko. waaw làmb dafa nekk euh, sport boo xam ne dafa dafa beneen affaire la quoi. beneen bi mooy que Balla Gaye tout le temps dama koy wax sama combat ak moom lu tax muy nekk dër bi mooy. Balla Gaye dafa daan mbaru Pikine yëpp. Ah. sonal na waaw loolu la quoi xam nga tamit Pikine waa. Mhm. pire cent cent pour cent. Mhm. nekk bañkat te ku ne xam ne ni Pikine ay bañkat lañ. li muy wax tout le temps baal yi ba esprit fighting la yor lañ. Mhm. ma xam ne nekk suma ginnaaw parce que tey boo xoolee bala Gaye wax limul ñu mu daan ñu Pikine. bari na. waaw Koli Faye Balla bi numéro 2. Tyson booy Sey <laughs> xam nga tey boo xoolee. bàcc seeraas. Mm. soo xoolee képp ku takk ngemb Pikine di biree di génn rek. nekk fa yaakaar rek. nekk fa yaakaar daan. Mm-hmm. sëf man. waaw kon tey man su may bëree ñooñu ñëpp dama leen di bëriwaaleel. te xam ne su ma ko daanee defet yooyu yëpp du feeñ. Mm-hmm. parce que lii ñu wax nii suñ ko waxul woon gars duñ ci bàyyi xel. Mm-hmm. te may doom Pikine. te man mu ñu ne mbër mi tëj na pikin non non bu du woon tamit ci man keneen xëy na mënu ko jëlaat. Boy Niang mun na ñëw keneen keneen mën na ñëwaat. Mm-hmm. ok kon tamit aussi dama doon bëriwaale loolu ak Balla Gaye. nga mm-hmm. tax Balla Gaye suma combat moom day métti. Mm-hmm. ba pare dañoo bokk banlieue bi. du dëgg. ba pare tamit gaynde la. te ñaari gaynde bu ñu dajee rek. day nekk business day nekk loo xam dafay yéeme. toujours lool la. mais Balla Gaye suma gaynde la jàmm laa ko yéene. te tamit aussi. borom xol ba naaj ah. sax. mën na nag bëri na xënj hmm. bëri na xam nga. parce que c'est normal xam nga hmm. sportif la bu amee état. Hmm. ren day dégagé wu. Ah. parce que sportif yi dañoo bëri ay ay ay ay juk ay ay caractères yu ñu bokku la man ay facettes yoo xam ne bokkuñu ko. am na gaynde gox champion boo xam ne bis bu amee état da koy dégagé. signature combat bu waxee rek ñun en tant que man en tant que combattant damay xam ni. li muy wax nii. li muy dégagé nii ci biir maanaam ci dooleem mooy mooy moo koy waxloo. mooy toll foofu. mais am na ñoo xam te ne dañoo tranquille. bu nekkee ci état pire pire pire xam nga. ba am lu ñu bëgg dëgg. dañuy ree rek. xam nga loo wax dañu muñ di ree rek te xam ne yàggatul léegi léegi ar bi génn seen diggante xam nga ku ci nekk ak ni nga koy dégager. Balla bu nekkee ci forme bu ci état. bu dugg see lu mu njëkk a def mooy def koy parce c'est normal. énergie la boo xam ne foog mu loo xam ne loo xam foog mu dégager ko. waaw foog mu wane parce du moom. xam nga yeneen xam nga am na ñoo xam ne bu ñu amee kattan dëgg dañuy meebu. dañuy yor rek kuul loo wax dañuy sëgg dañuy bëri kees yi jàpp seen njàmbur. Mm. mais jours yi nag xam nga bu jotee. Mm. dañuy wane seen njàmbaar. waaw noonu la quoi.